mu ne sëñ bi nee woon nit dañ koy def ñetti xaaj xol bi ab xaaj la làmmiñ wi ab xaaj la yëres ci cër yi itam ab xaaj lañu ñetti xaaj yi bu ci ne war na am fu mu dëkk ak lu muy dunde ca foofee mu dëkk xol bi fa mu war dëkk mooy tawxiid di wéetal yàlla boroomam lu war di dunde nag mooy di yéene aw yiw ak xalaat xalaat yu baax yu am njariñ di moytu xalaat yu baaxut kon xol dëkkuwaay mooy tawxiid ab dundam mooy di yéene lu baax te xalaat lu baax làmmiñ nee na ab dëkkuwaay mooy sax ci tudd yàlla ab dundam nag mooy sax ci waxu yiw moom làmmiñ wi ya des ci cër ya nak fa ñu wara dëkk moy sax ci la yalla bëgg mo xam day la yalla waral mo xam day la mu soppati agul ci waral ko kon cëri mom moom sax rek ci la yalla bëgg muy seen la ñuy dundé nak ñoom cëri yoyu moy la yalla daganal ci mboolem xet yi kay yi mo xam nanla la salla xam naan la mo xam sol la mo xam dëkk la lew ci yoyu le mom la cër yi wara japp di ci dimbaliku ba mëna sax ci la yalla bëgg ndax nit faaw muy lekk ka naan ka fatu te bu dee ku gëm yàlla nag da koy wóor ne moom la lew rek moom la sañ a sawuta jëfandikoo lu arab ba lu sip, warnet, kon nag na fexe ba am lu lew lu dagan di ko dimbandikoo ngir mën def la yàlla bëgg muy waajib ak ban